jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen nuy seetaan ci Touba Argentine TV ñu ngi leen di nuyu bu baax di rafetlu ànd bu ngeen di ànd ak ñun ci présentation bi seen mbokk Arouna Cissé ci wàllum caméra bi mbay Seck moo fa fare fare ci réalisation bi Gora Seck di sant sunu borom bu baax nag ci tawfeex gi nga xam ne tawfeexalal nañu ko tey jii ñu ànd ak jëmm ji ngeen jàkkaar lool di Serigne Abdoul Ahad Xasida Serigne Abdou Lahad Diouf nag yaakaar naa nekkatul koo xam ne euh, gan la ci image ndax yàgg ngeen ko gis euh, ci ay taxawaay yu am solo mu nekk koo xam ne ci yoon wi am na ci ab taxawaay bu am solo nekk jàngkatu xaside boo xam ne ci li nga xam ne ci li mu nekk muy xaside yi modèle la ci euh, yaakaar naa ne ñu baree bari tey ñi ngi ci njàngum xaside mi Euh, te bëgg gu ñu ko bëgg bëgg am njàngam moo leen ci soob ba tax na tey yaakaar naa ay Serigne Abdou Lahad Diouf Serigne Abdou Lahad yu baree bari ñu ngi ci yoon wi di yëkkati xasida te ginnaaw yàlla jëmmam moom moo tax kon nag bu ñu waxee loolu kon dañuy xam ne xasida yi amal na ci taxawaay bu am solo tey nag ñu fas yéene séq ak moom waxtaan ci bis bu am solo boo xam ne mu ngi koy waajal muy bisub sant sëriñ Touba Cheikhul Khadim mu war koo defee ci Touba jànnatul maxwa mu war a nekk ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mai atum 2023 ji ñu jëm bis boobu nag lan moo nekk sabab bi maanaam yi lay mu taxawal bis bu am solo boobu ak yeneen i point yoo xam ne daañ ci dugg ak moom kon duñu guddal rek dañuy bàyyi sunu gan Serigne Abdou Lahad Diouf mi ñu dalal ci Touba Argentine TV sëriñ bi ñu ngi lay wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani jërëjëf sëñ Arouna ñu ngi lay delloo nuyoo bu baax di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñoo jàkkarlook ñun ci télévision bu mag bi di télévision Touba Argentine di siyaare Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi. te wér ci barke borom Touba di am mbégte bu baax ci jataay bi euh, di ñaan suñ boroom mu fulal ñu jataay bi mu bokk ci jataay yi nga xam ni jataay yi mu gërëm lay doon waaw. jërëjëf Serigne Abdou Lahad Diouf ci nuyoo bu gàtt bu matale boobu Serigne bi mu ngi dëgmal bis bu am solo wax naa ko léegi muy bis boo xam ne yaa ngi ko taxawal muy bisub sant sëriñ Touba Cheikhul Khadim ndax mën nga ñu dellu ci lan mooy taarixu bis bi maanaam yilla ji lan moo waral nga taxawal am yëg-yëgu taxawal bisu sant Serigne Touba Cheikhul Khadim. ah sant sëñ Touba de war na ku ne waaye rawatina ñun ñii nga xam ne yàlla dafa dogal ñuy ay ndaw ba ñu doonee ndaw ba fii nu toll nekk ci xasidaam yi nga xam ne moom wax na ne. ila tawalif yaqudu llahu asraara laa ilaha illa allah wax na ne karaamati xattu yat yi karaamaam mooy lim bind yàlla xiir ñu ci ñu koy jàng yàlla defal ñu ci itam nit ñi bàyyi ñu ci xel di ñu déglu ñu sax ci ab diir sunu ndaw gépp mbaa li ëpp ci sunu ndaw ba fii nu toll ñu def ko ci kon ñun war nañoo sant sëriñ Touba kon na kuy sant sëriñ Touba rek ñun defe naa ñoo ci war a jiitu ndax loolu rek doy na waaye mën naa gën a yaatu ndax booy jàng xasida dama dem ba yàlla dogal comme ni nga ko waxee léegi am ay ndaw yu la bëgg di la ci roy ba ku ci toog tey mën a def lu raw la nga doon def loolu doy na sant yàlla waxuma laa nag sa njabootu bopp nekk ci waxuma laa nag yow feex yi la ci yàlla defal nga jàng ci ay kanami doomi Serigne Touba ak sëtti Serigne Touba. ñu déglu la loolu doy na sant yàlla kon yëg-yëg boobu daal moom laa am nga bëgg a woote bis sant Serigne Touba. Euh, bis boobu ndax mën nañu xam ren mooy ñaateel bi yoon di ko amal. waaw jërëjëf euh, mën naa wax ne bis bi ren mooy ñetteel bi yoon ndax bi ma ko njëkkee def booba euh, dama amoon sama njaboot ñu jàng alxuraan ba wàcc wàcc googu nag kawe ci man. ma woote woon bisub sant sëriñ Touba ngir béggal leen ci béggal sëriñ daara bi leen doon jàngal alxuraan ndax dama ko diggante woon ak moom dama ko ne woon boo jàngalee xale yi ba ñu wàcc alxuraan dinaa wut bis sant Serigne Touba sargal la ci muy muy muy ga fii ci Touba bi ko ñaareel mooy daaw bi ma ko defee fii ci sama boori kër fas ko yéene ñetteel ren ji kon dafa mel ne. ci gàttal ren mooy ñetteel bi yoon bu ma ko wootee fii ci Touba. ni atum xen ji li ci dolliku bokk na ci yaa ngi ko tuddee Cheikh Mouhamadul faadal ñu gis ay woy yu baree bari yoo xam ne ci sam njàng way nga ko sëriñ Fallilou tey ji ñu gis nga jël bis boobu daal di ko koy tuddee waaye dara jaalee ko ki nga xam ne mooy Serigne Modou Aminata Fall mi nga xam ne mooy sët bi njëkk. wuutu maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babil Mouride. waaw jërëjëf waaw sëñ Fallou de moom yàlla dogal ma bëgg ko rek ci sama xol bëgg lool sëñ Moussa mi nga xam ne bari na ay bayit yoo xam ne def na ko jëmee ko ci sëñ Fallou yàlla def nag bi ci gën a ràññiku muy irkabo bii nga xam ne daaj bu cosaanu la boo xam ne njabootuk sëñ Moussa ñoo ko daan jàng ma gis daaj bi. xam ne lii man am naa ci cër ma jël ko di ko jàng ngir bëgg gu ma bëgg way sëñ Moussa Ka waaye rawatina yi nga xam ne def na ko jëmee ko ci sëñ Fallou euh, bëgg googu nag euh, dafa mel ne am na am na lu ma ci yàlla defal ndax njabootam gi maa ngi ñaanal alaaji baara ak sëñ Modou bu Dieng yàlla yokk seeni leer waaye yàlla bàyyi sëñ aboo Baraka moo ko ay rakkam yépp ñu yàgg fi lool te wér waaye sëñ Ahmadou Rafaa yu moom laa njëkk a am lanteel ci njaboot sëñ Fallou mu di ma jàngaloo màggalu Kazu Rajab fii loolu moom ñu bari xam nañ ko muy kenn koo xam ne sama sama jaar-jaar ci njànguma xasida ku ca jàpp la mook sëñ xabaat moom sëñ Fallou maa ngi leen di ñaanal yàlla yàggal leen fi te may leen ak wér ci barke borom tubaab ci gàttal daal bëgg sëñ Fallou rek moo ma xir ci li ëpp ci sama njàng ci ay olofalam ma di ko jàng waaw sëñ Modou Aminta it li ma dal ci sëñ Fall moo ma dal ci moom dama daan déglu Ibrahima Diop Karaman muy muy muy def ay abiyaat di ko jëmee ci Baye Fall yi waaye nag way yim way sëñ Modou Aminta dafa daje woon ak itam yàlla may ma ma def ak sëñ Modou Aminta jataay ma ànd ak sëñ Mourtada tukki dem Gabon ànd sëñ Modou Aminta ñu ñu bokk yoon wa ma ma ma bokk moom ay jataay yu bari fekk bu ma ko musaana seen nii rek dama ko daan sopp lool ngir lim nuroog sama turandoo ak aw cëlin sëñ Abdou Lahad waaye nag bi ñu defee jataay ma gën koo bëggaat bi muy déglu way yooyu nag déglu déglul ma wax la Moodu Fàllu laay nu mu gën a góor ñi naa ci teg billaay laay bàyyi ma doon mbóote woon ca maamam mu dellu doon mbóote woon ca baayam loolu neex ma nag mu wutal ko daaj di ko daaj moom it yàlla defal na ma ci tawféex ndax njabootam dëkkam bii di ma dina Fall am na bis bu ñu fa daan woote boo xam ne at jàngi naa ko ay ati at kon ci gàttal bi subren bi looloo sabab ma tuddee ko sëñ Fallou moom sëñ tuuba dara jaale ko sëñ Modou Aminta Fall. waaw incha allah da da da mën a ne mu neexee yàlla. ay xeeti daaji daaj la nag. benn rek. irkaboo gaay nan ñaani paaso seexi fadilu gaal gaa ngi teero gaal gaa ngi irkaboo gaay nan ñaani paa seexi Faadilu gaal gaa ngi teero ñaani paa ñaani paa seexi Faadilu gaal gaa irkaboo gaynan ñaani paak feexi fadilu gaal gaa ngi teeroo nan ñaani paak seexi fadilu gaal gaa ngi Sëñ Fallu sant na sant bi moom kan nga ko njëkk jàngal ci ci ci ci waaw daaj bii de sëñ Mourtada Juma yàlla na ko fi yàlla yàggal te may ko ak wér mook alxaaji baara ñoom laa njëkk a jàngal daaj bi sëñ Mourtada taxaw ci lool ngir bëgg ma bànd mooy bànd bu siiw boobu rek mu taxaw ci lool mook alxaaji baara daaj bi alxaaji baara yóbbu na ma ci màkk bi mu toogee ci xilaafa gi rek maag Modou Mbaye sàmb la boole yóbbu ñu màkk ni nag kaay yaa way sëñ Fallou moo tax dama la yóbbu màkk waaw waaw macha allah fàttali mbokk yi nga xam ne yeneen a seetaan ci télévision bi nga xam ne mooy Touba Argentine TV tey ñu ngi séq ak waxtaan sëriñ Abdou Lahad Diouf xasiida euh, ngir waajal bis bu am solo boobu nga xam ne moom lay waajal muy bisub sant ku tedd ki Serigne Touba Cheikhul Khadim gis ngeen ni nga xam ne jot nañu ko ñëwal ci li nga xam ne mooy yëllay bis bi li waral mu taxawal bisub sant bi waaye it ren mu daal di koy tuddee Cheikh Mouhamadul faadal Mbacke ñaareelu xalif euh, général des murit waaye dara jaale ko moo Modou Aminata Fall mi nga xam ne mooy sët bi njëkk wuutu maam Cheikh Ibrahima Fall muy lu am solo sëñ Abdou Lahad dañuy ñëwaat rek ba tey ci bis boobu. yaakaar naa ne bisit ku ko woote dana am programme mooy tëralin wi nu mu war a tëddeegee ca aju euh, loolu sëñ Abdou Lahad dana am solo lool yell nga leeral ko ñi nga xam ne jamono jii ñuy wax ak yow ñoo lay seetaan fépp ci àdduna bi ci bis boobu naka la programme bi war a tëddee. jërëjëf sëñ Arouna bis bi fas nañ yéene lépp loo xam ne bisub lislaam war na caa am am nañ pas-pas def ko ci bis bi. li ci njëkk mooy alxuraan ju bari fii nu toll nii sax woote nañ mboolem soppee yi daara yi am yëpp ngir ñu teel a tàmbalee jàng njàngum alxuraan gàttandoo ko bis bi bëgg nañ alxuraan ji bari ci lool bu loolu jàllee bëgg nañoo def ay limi xasida ci wàllu durus bëgg nañoo def bernde itam am nañu yéene waxuma la tànt bi waaye li wër quartier bi yëpp am nañu yéene bu bés baa bernde fenn fu ne mu mën faa àgg waaw loolu am nañ yéene jooju bi ci topp mooy fas nañu yéene ubbi sunuy kër ak sunuy néeg génn yaatal gan ñi nga xam ne ñi fas yéene bàyyi ko fenn fu ne ci gox yi jëm si ci bis bi ndax moom bisu bu ren bi incha allah li ma ci yéem mooy koo wax mu ne bis boobu sama bis la ñëpp ko waajalal seen bopp macha allah léegi bi ci topp mooy guddi ga nag moom buñ demee ba julli tisbaar ba ba bernde ba noppi guddi ga sikkurullaahi dana fa am buñ defee sikkurullaahi ba noppi itam danañ waxtaan ndax waxtaan boo wooyee ay nit ñu ñëw say mbokk ak say soppe ak say wëllëre ñëw yàlla na ci def waxtaan. ni ñuy tuddee jamono dana ci am ndax bis bi itam dafa am ñoo xam ne dama leen ko cëralee. ñu ñuy samay wëllëre di samay soppe ki ci njëkk. mooy sëñ Abdou Karim Mbacke di sëtub sëñ fàllu waaw muy muy borom diwlin bintaa waaye muy koo xam ne sëñ Aroona dama gis ci moom ay qualité yu ma neex muy day ab jaamukatu yàlla macha allah di ab liggéeykat maanaam fexe na ba mook mook ay rakkam ñu créé loo xamante ne bii ne jubluwuñ ci lu dul ndawi Touba kenn ku ne mën a am ci loo yëngu. lan créé euh, mu andi ko ci gox boobu di jannatul maxwa nga xam ne it sa bërëb fa la nekk fa ngay amalee bis bi. entreprise boobu di Dëwlin Binta foofu la euh, siège bi nekk. sëñ Abdou Karim nee naa ko Dëwlin Binta man man maa ko moom daanaka ndax mënoon na ko def fu ko neex. waaye nii mu ko defee jànnatul waa nga xam ne su ma génnoon sama kër dox. man maa dem dugg ci usine bi. loolu day mel ne ab cër la bu bu yaatu bu ma ci am. tey lu jiitu loolu itam doon na ko waxtaanee ak man ndax àndoon nañu tukki mu yóbbu ma Italie. moo ko rakkam ju baax jooju sëñ Fàllu ak sëñ Moustapha moomu bis buñ doon taxawal foofu yoon wa doon yoon wu ma yéem ndax sëñ Abdou Karim melokaanam li ma gën a yéem ci moom mooy sëñ Abdou Karim bu bu jëloon kàddu nii di waxtaan ci ci ci ci taarixul wala muy def loolu ñuy wax conférence euh, da ngay defee ne loolu rek mooy cëram la boo ko fekkee ci domaine liggéey itam da ngay defee ne lii rek mooy cë cëram muy ku baax ku am ay qualité mhm. ma naw ko ci loolu moo tax ma cërale ko bis boobu am na kenn koo xam ne itam dafa jeex tàkk ci sëñ Fallou mhm. moom dama moom su ma gisee dama koy ñaanloo mhm. muy colonel Ousmane Faye dëkk Njaareem nekk fee ca euh, duwaan ca dakaar moom itamit ma ma séddu ko cër ci bis bi ndax damay boromi nit ñëpp bëgg ma ngir sëñ Fallou waaye ñëpp sa xajuñ ci bis bi ki ñu wax nag sëñ Fallou Ndiaye Rahman di moom koo xam ne dafa ma yéem ndax day docteur boo xam ne day faj ay nit ngir jëm yàlla di leen tàggaleek ay jàngoro yu yu naqaree faj waaye muy jëmm joo xam ne euh, yàlla da ko may xel mu mu mu mën a jariñ doomu aadama boo ko dégloo ci ci ay kàddoom rek mën nga caa jëlee loo xamante ne bii ne sa adduna mën nga mën nga ko doxal doxi mu rafet muy ko bari njariñ di dimbali ay doomu aadama te yàlla tax waaye bi ma ci gën yéem nag mooy xasiday sëñ Tuubaa yi ni mu ko fonke fonk ñi koy jàng man nag ma gën caa am ak ràññiku ci sama digg moom ngir xasida yi moo tax ñoom ñii ma cërale leen bis bi di ñaan yàlla ñu àgg ci ak jàmm euh, suñ borom defal leen ci lu kawe seen njor defal ñu ko ci ñun ñii kon maa ngi leen di xaar di leen séentu bis bi day fanaan ba asamaan set ndax waaw xam nga dañuy wax ne ñaar rek fi ne nga leble wala ngay fay bor ñenn ñi ñi ci ëpp lebal naa leen ndax bi ma dalee wuy ji ak léegi mi ngi bëgg a yàgg te bariwul lu ma woote kon maa ngi séentu ay ay ay fay ay fay bor bor yu bari yu ma gaa yi yoo xam ne moom gaa yi sax dafa mel ne dañoo sawar ci fay ma ko nag ndax kenn ku ne nee nga yaa moom bis ba ñii di waxtaan ci yoon wi itam ñoom ñëpp mel ne sëñ Abdoulahi Diop Bichri Gànn Mesere sëñ Boussara Samb ñoom moom sama maga ji sama lépp ba ci sëñ Saliou ñoom ñi kenn ku ci ne jàpp nga ne bis bi moom sa bis la bokk ko kenn jànkati xasida yi itam li ko tàmbalee ci euh, sëñ Fallou Gam bu Kaolack it mu ñëw ci moom kenn ku ne mënoo ñàkk jëwriñ moom mooy sama jëwriñ ci xasida yi ndax moom laa daan aw di ko topp di roy ab daajam ba yàlla may ma ci ma am ci cër dana jóge Kaolack moog mboolem waa Kaolack yëpp ñëw te fas naa ko yéeneel sargal ci bis boobu kon maa ngi woo mbokk yeek am di jàmm yeeg ñëpp ñu ñëw fekke silma sargal boobu may sargal sëñ Fallou Gam muy sama jëwriñ yeneen jàngkat yi nga xam ne maa ngi ñoom seq njàng mi fii ci Touba ku mel ne sëñ Xaadim Guèye sëñ Cheikh Diop Mbaye ba ci euh, sunu rakki jàngkat yi fi nekk yëpp Xaadim Kebe ñoom sëñ Mara Seck Seexuna Mbaj sëñ Abdoulaye Seck mi nga xam ne mooy suñu jëwriñ sëñ Ndonga Caam ca Kawlax sëñ Mut Caam Jaaja bu ma limee tax ma matal ndax ñoom ñëpp samay xarit lañ samay soppe lañ maa ngi leen di woo ci bis bi te di leen xaar te di leen séentu di leen waaw ñi ma bokkal ahlu xasida yëpp ak ñi ma bokkal ahlu daara ndax man dong daara laa daara dama neex waa daara neex ma ma bëgg leen ci sama xol loolu ñi jàkkarloo caméra bi te xam ma ci loolu xam nañ ne loolu dëgg la ci man ak magi magi magi dëkk bi mag ñu baax ñu ku mel ne sëñ Abo Ndiaye Koubra sëñ ture ñoo ñu nga xam ne man bu ma demul fenn ma ak ñoom suñ borom danoo boole bu bu ma yendu bu ma yenduwul kër kii bu subaa ma yendu kër kee bu ma demul fenn kon bis la boo xam ne daal mën nañ ne 24 heures ibaadaat la xam dañuy concentre suñ borom di sant sëriñ Touba waaw waaw njabootu Serigne Touba gi maa ngi ko tàmbalee ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha mi nga xam ne moom mooy suñu baay di suñu soppe di suñu xarit ñun jànkati xasida yi maa ngi koy yëgal bis bi ndax bis lu ma mës a xewle rek Serigne Mountakha sagal na ma ca di ko yëgal sëñ aboo baraka mi nga xam ne nag mooy xalifa sëñ fàllu ak mbooleem njabootu sëñ fàllu gépp bàyyiwuma kenn waaye di ko yëbal di ko yëgal itam waa Madina Fall ndax at mu jot dama leen daan jàngal te njàng ma gëj naa am ragal naa ne ren ji moom dañuy dañuy dañuy jël njàng ma fa daan am rek far indi ko janatul maxwaa waaw di ko yëgal ñëpp rek ci gàttal daal di ko yëgal yéen ñii nga xamante ne bii ne yéen a yëngu ci wàllu télévision yi waa presse bi yëpp bàyyiwuma kenn ndax li ma la wax rek leble wala fay bor rek presse nag waaw janatul maxwaa itam xam nga bu ma ko waxee mënumaa ñàkk tudd ku mel ne sëñ Moussa Xasaay moom mi nga xam ne moo ma jëlee Kaolack indi ma fii ci Touba may ma kër ma dëkk ci wetam ngir xaside yi rek kooku maa ngi koy yëgal ak njabootam gépp rawatina nag sëñ Abo mi xam ne moom dafa jaxasoo ak ñun bu baax ba ak Cheikh Abdou ak mboolem njaboot gi yëpp bàyyiwuma kenn sëñ Jiili menn ñii moom moom sëñ Saaliw sëtu sëñ Saaliw bu baax bii di sëtu borom daaru moom it maa ngi ko ko yëgal sëñ siiru Mbàkke moom sëñ Saaliw moom it maa ngi ko koy yëgal waaw sëñ Murtadaa itam moom moom moom moom sëñ coy bu ba ci sëñ Baara moom sëñ coy bu moom it ànd nañ fi tukki muy ku baax maa ngi ko koy yëgal di ko yëgal askanu Njuufeen bi ma bokk ndax nag loolu ñuy wax d'honneur bis bi d'honneur bi mooy waa Njuufeen ñoom laa def invité d'honneur sama santu baay moo tax li ko tàmbalee ci baay Basiiru Juuf ba ci mbooleem ñi nga xam ne ñoom laa bokkal sant bi ñëpp maa ngi leen di woo waa kër sëñ Aliou Juuf Lambaay waa kër Buur Siin ko mëndoo fen bàyyi kenn rek ci gàttal daal. macha allah euh, jërëjëf euh, euh, sëriñ Abdou juuf Diouf ci kàddu yu am solo yooyu ak woote bi nga xam ne woote nga ko mu jëm ci li nga xam ne moom mooy bis bi. Euh, muy lu am solo ak euh, kilifa yu baax yooyu nga xam ne jagleel nga leen ci ay cër euh, yaakaar naa ne Serigne Abdou Karim tudd nga ko sànq muy ku baax borom déwlin Binta moom it doon ko xam ne moom ak Serigne Fallou rakkam ak ki nga xam ne mooy Serigne Moustapha référence lañ ci ñi nga xam ne ñoom ñooy jeune marabout yi wax dëgg yàlla ndax it la seen maam santaane woon gis nañ ne ñoo ngi ci. Euh, mooy euh, surriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabil Mustafa tajtahidu dëgg yàlla euh, ay nit ñu baax lañ yoo xam ne seen taxawaay ci dëkk bi rafet na trop ay jaamukatu yàlla lañ ay liggéeykat lañ comme ni nga ko waxee sànq sëñ Abdou Karim boo ko fekkee ci baas fekk naa ko ci baas ba tàyyi lu jiitu ma koy xam moo ñawaan fekk muy waxtaan damay defee ne ab conférencier la wax dëgg yàlla ay kon day wan ne seen wéjur Cheikh Mouhamadul Bachir moom Serigne Modou Boussa Dieng teg na leen ci yoon yar na leen jàngal na leen kon nag ñu ngi ñaan suñu borom guddal seen fan waaye loolu nga xam ne taxawal nañ ko waaye jagleel ko dëkk bu sell bii di Touba waaye réewum Sénégal muy Dewlin Binta euh, mu nekk euh, Dewlin gu am solo lépp loo xam ne rek euh, yéene nañ ko ci suñu borom defal leen ko ak kilifa yu baax yi nga xam ne yëpp jagleel nga leen ab cër ci bis boobu kon xam naa sëñ Abdou Lahad du ñu defal lu dul rek jébbal kàddu gu mujj gi. loo xam ne peut-être ci biir bis bi bëggoon nga cee wax te xaj na laajuñ la ci su ko defee rek incha allah ñu jébbal la kàddu gi rek su ko defee nag incha allah ñu waajal bis ba ak jàmm nag fas yéene cee ànd ak yow ci lépp loo xam ne rek war na ci ay taxawaay ngir fas yéene koo fësal. waaw jërëjëf li ma ci dolli daal mooy maa ngi sàkku ci waa daayira saadatul daarayni saadatul muridina bi ma bokkal nekkal fii ci janatul mahwa nga xam ne ñoom àjjuma ji di ñëw sax incha allah maa ngi leen di xaar man lañ jox daayar bi ñuy ñu baax ñu am pas-pas ñu ma jàppale ci bis bi maa ngi leen ci soññ di soññ jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ca sama koñ ànd ak samay soxna di ab mbootaay boo xam ne dañuy set setal dëkk bi di leen xamal ne alxamis incha allah fas nañ yéenee def set setal euh, fi ñu war a def baas bi di ko yëgal ñii xale yi nga xam ne ñoom laa àndal njàng mi di ko yëgal képp képp koo xam ne sama soppe nga bëgg naa bu alxamisee ñu ànd euh, laabal barab boobu waaye maa ngi sàkku bu bis baa yàlla nañ ko fekkee jàmm na ñam yi doy te teel ñam doy te teel bi ci topp mooy euh, lépp loo xam ne lu ñu war a def ca tànt ba la ñu teel koo def mooy teel a ñëw teel a dugg ci baas bi ndax gan boo koy teeru yaa ko foor jiitu kon loolu maa ngi koy wax mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi aju ci ñun di ñaan ñu àgg ci ak jàmm te mu jàll ak jàmm te lépp dëppoo ngërëmal sëñ Tuubaa rek ku fa ñëw dégg fa lu la neex lu sedd sa xol yàlla bu fa am bu fa kenn am lenn loo xamante ne bi lu lay naqari la ci barke borom Tuubaa waaw ñoom ñoom ñooy man may ñoom mun ñoo dem bàyyi ma mënumaa dem bàyyi leen noonu mën na ko sëñ bi tënkee ci xasida yi ne njanaaw la ñoom noonu laa demee ak ñoom dama leen di wéttilikoo defuma leen ay awkat dama leen def comme sama bopp ndax loolu laa gis ci ñoom ndax kenn ku ci ne jàngantuwuma la am na lu ma xam ci yow kon maa ngi leen di xamal ne bés bi ñoom ñoo ko moomal seen bopp lépp lu ci waay xam ci lu baax bu ci tàggoo mën nga caa daal di nekk di ko yëgal communicateurs yi itam ndax ñoom itam ñu baax lañ ci samay wëllëre da cee bari maa ngi leen di bis bi di leen xam ne bis bi seen bis la bokku leen ko kenn di ko yëgal itam chauffeur yi di ko yëgal waa Madaar faa bari ay soppe di ko yëgal autorité yi yëpp bàyyiwuma kenn waaw bàyyiwuma kenn di ñaan ñu àgg ceeg jàmm rek hubbu nabi lillahi sawara zaadun ilal madinatil munawwara muhammadun sallallahu alayhi مسلما برد لنا أولاه محمد فرد يفوق تسنيا وفاق جمعا والعدايا مغنيا